maa ngi nekk ci Colobane ci maison du parti socialiste. bu sori mm. ak Massalikul Jinaan. waaw. fii nag euh, sànnante xeer yi ak policiers yeeg euh, lacrymogènes yi euh, mooy manifestation yeeg ñoom mu ngi ne waaye dafa am benn xale bu fi ñàkk bakkanam léegi boo xamante ni grenade lacrymogène dañu ko sànni. dafa takk ba euh, grenade bi daal dafa taal yaram bi. Mhm. Euh, sànq la décédé croix rouge ñoo ngi ko nii te ko confirmé nañu ne ñàkk na bakkanam parce que ñoo ngi ko emballé ak seen euh, bagage yooyu ñu xam ne moom la ñu yor waaye daal seddagul ba léegi ndax sànnante bi moo nekk ci. Serigne diggante Serigne Gueye nga ne croix rouge ñoom ñoo wax ne xale bi ñàkk na bakkanam croix rouge xamal nañu ne ñàkk na bakkanam mhm. euh, léegi léegi nii rek ñu ñu ñoo ngi ànd ak ñoom di leen ko laaj ñu ne ñu effectivement ñàkk na bakkanam il est bien décédé mhm. muy xale boo xamante ni ay atam xam naa ne ci ay fukki at ak euh, juróom jàpp fukki at juróom benn ci lay war a toll mhm. waaye dafa sàkk ba yaramam euh, ba ñàkk bakkanam alors Serigne kii yow xale bi lan moo ko lakk nga ni grenade lacrymogène la dañu ko sànni grenade bi moo lakk yaram bi ba mu ñàkk bakkanam léegi muy kon euh, mbir mu euh, doy waar euh, Serigne Gueye moo ñu ko xamal mu ne ma nga ko xewee kon foofule ca Colobane ci wetu maison du parti muy siège yu parti socialiste maison Léopold Sédar boobu boobule li mu wax moom Serigne géey moo di ne daal waa Croix Rouge ñoo leen xamal ne am na xale bu ñàkk bakkanam ci manifeste yooyu la li ko waral mooy dañu sànni lakk lacrymogène bi mu tàkkee nag xaw ko laal ba mu daal ñàkk ci bakkanam lu ci mën ci am xibaar la boo xam ne dañ jeunes luy jafe la Serigne mais su fekkoon ne mën nañoo am euh, kenn ci waa croix rouge yooyu mu wax ko ci làmmiñam ñu dégg euh, su ma nee nekk euh, ngeen seetal ma également Abdou Khoudoss Diallo moom soriwul ci wet googu